waaw coow li amoon dem Joal euh, man dama jaaxase même tey bi may dugg dama tiit quoi tiit naa dama tiit man dama ni mbaa jàmm moo fi xew parce que li ñu indi ci oto gendarmerie bëri na trop police xam nga te gisuma lu ko fi jar quoi parce que affaire yi nii rek la président dugg ci kër nuyoo yaakaar naa jarul yenn yi parce que xeexuñu xuluwuñu wax dëgg yàlla xam nga jarul yenn yi daal waaw may ñaan état bi ñu xoolaa seen bopp wut jàmm xam ni jàmm ci la lépp xej parce que ñun ñëpp bokk ndey ñoo bokk baay Macky Sall bi ñu koy jox réew mi joxewuñu ko ci ay dañ ko jox ci jàmm kon nag même bu koy delloo na ko delloo ci jàmm xam ne ne nguuru yàlla rek moo dul jeex yàgg-yàgg nguuram day jeex waaw bu mu xëccoo daal wala muy def yenn àddina jaru ko te bu am na loo xam bu ko defee tamit ëllëg dina ko rëccu kon nag na xoolaat boppam xam ni Sonko frère la ñoo bokk Sénégal Euh, nañu mànkoo daal liggéey Sénégal ci jàmm waaw Sonko xol bu rafet la yor wax dëgg yàlla Sonko man xam naa ni tey bu jëloon réew mi euh, du du tëj du tëj kenn waaw day wax nii rek kon nag ñu ñëpp bokk ndey ñu bokk bàyyi gars yi na delloo ay gendarme xaw ma fa ñu jóge woon ñu dem seen jabar dama leen yërëm sax ñu ngi si oto yi sonn lool wax dëgg yàlla si naaj bu tàng bi